li ma bëgg mooy damay jaarale ci kaawu Jules Balde Junior bokk naa ci ñi ko njëkk a tàgge parce que bi mu gaañoo tombé na may def émission pencum làmb RFM ma koy ñaanal yàlla woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay bakaaram xare ko àjjana il est mort très jeune aussi mais yàlla mooy def noonu ah <laughs> ñun ñii ñëpp kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul naka la hmm? mais ci benn côté tamit gars yi nañu bàyyi di jënd nagu dëcc yi tey jënd ordonasi bàyyi loolu quoi man ku ma ko def baalu ma la ma tëdd war ma faj ma dee nga may ma cent milliards dinaa yeewu matt la deewaat amul njëriñ gars yi ñoo war a bàyyi jënd nagu dëcc yi tey jënd ordonnance yi nit bam ko soxlaa waaye nag kaay ma wax la gars yi dañu may muuma gaarawaale wu ma kenn nag du Wally Seck laay gaarawaale il a fait un très grand geste am na ñu ko ëpp xaalis defuñu ko am na ñu ko ëpp ay moyens defuñu ko bravo Seck jërëjëf yàgg nga def lu baax yàlla na la yàlla jàppale waaye dama ne gars yi duñ may muuma xasuma muuma mooy ku mënul wax duñ may ku gëmm duñ may ku takkul rajo sénégalais moo mel noonu ñiy def te yàlla tax bareetuñu waxuma kenn nag deful te yàlla tax damay wax lu leer waxuma kenn mais ñiy def te yàlla tax bareetul comme Sénégal boo tëggul tama tëgguloo sabar télé taxawul nga gërëm diw duñ la may l'heure est grave ban Sénégal lañ nekk leur est grave ana ana ana Sénégalu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ana Sénégalu maam Alaaji Malick ana Sénégalu Boukounta Ndiassane ana euh, Sénégal maam Limaamu Laay mais ñiy def lu baax ñi def lu baax ba tey dégg na boy, boy pap sar mu wax ci seni micro ne Keba Kanté jox nako ko yo xamanteni neko dema ne ko demal nga faji boy bi mais bul fàtte ne boy bi yobou nañ ko Maroc ah taxaw amna, yalla ñewna waye na ñun njabootu lamb ño wara taxaw tem ba li ñuy def ni di kétal buñu fébaré ak yoyu dindi ko fi xam duñ ko fi dindel CNG moñu bot heureusement sax ñun ñu ngi ci ay structure yo xamanteni ni am IPM am nañu am nañu am nañu l'exception xam nga ne fait pas la règle xam nga fait la règle ñun ñi kenn ku ci nek bo feebaree ya ngi feebar sa dom di feebar sa jabar di feebar mais ñi ngi lay faj sa structure ba nga nek ñi ngi lay faj ci IPM mais pourquoi mënuñu ko def lool IPM ci lamb ji mën na ne assurance bi ñuy fay mbër yi bi mbër di fay anamu comme ministre des sports néna CNG mi ngi koy rendre compte CNG mi ngi koy jox bilan bi mu koy jox satisfaire nako ah nous nous donnons notre langue au chat mais bu doon fédération dinañ tok leeral ben deureum ba mu ne leer nañ ba mu ne koj ni kororoj ma wat ci mbëru Pikine di jàpp nañ ci wala japp ci ban domaine lañ ci jappé ki yëkkati téléphone am wo buur géwél ne ko diw dafa feebar ñëwal def reportage buur géwél ñëw def reportage première dame dégg ko wala nit ku baax dégg ko jappalé ko kooku amna num ci jappé wala sax toog julli jàpp waa diw yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla kii des fois berk yàlla di nga séntu weer mu kaamil des fois fi ngay yaakaar ni gars yi yor nañ ko yoruñu man maa la ko wax